plage par rapport ak li ñu doon waxtaan léegi léegi ban gis-gis ak ban xalaat nga ci am vu que yéen aussi seen mouvement bi ay allié ngeen ci Ousmane Sonko. jërëjëf soxna si ñu ngi lay bu baax di wax ne mu toll nii gis-gis moom mhm. dafa am lu am euh, ci Sénégal li am ci Sénégal mooy dafa am ku tudd Ousmane Sonko nekk maire Ziguinchor di fa voté ba yàlla dogal mu jiite bokk moomeel ba. ñu ne dafa am problème ak yoon mu nekk benn dossier boo xam ne dafa privé te tàmbali ba privé maanaam ñaari citoyen sénégalais ñoom ñoo ko seqoon kenn ka kenn gisatu ko am ku ko remplacer ku tudd état du Sénégal waaw jël yëf yi wax na ko léegi tuddu ministère de l' intérieur tey bu ñu daan wax dañ daan wax pouvoir opposition wala ñu ne ñaari citoyen sénégalais ñoo jote ñoo jote waaye ñu wax état ak nit loolu daawuñu ko wax mu mel ne euh, coow li bëri na waaye nag am na lu ñu tënk ñun ñëpp muy yoon te yaakaar naa même ñi faree ñi nga xam ne faruñoo ñun benn critique lañ ñu daan jox mooy nañu tënku ci yoon wala du noonu loolu ñun yàgg nañ ko dénk nañu nañu dem ci justice mu àtte lu justice wax ñu xam ne loolu la léegi nag foofu lañ toll fi ñu toll mooy état du Sénégal ministère de l'intérieur daaf ak ni mu ko waxee dañoo génne benn citoyen sénégal boo xam tegu ñu ko fenn ci liste électorale yi kooku ne comme réew mi am na yoon xaaral ma déposé. def ni samay jaar ci ay avocat am daal di def recours ne dama bëgg ñu dugalaat ma ci liste électorale yi parce que amul lenn ci yoon wala ci droit wala ci benn këyit boo xam ne. Mhm. wala texte boo xam ne wane na ne man damaa war a génn. ñu yóbbu ko Ziguinchor ngir bañ lañ waxoon Karim Wade ñu wax ko ko mooy dem tribunal bu Dakar ne dama bëgg a dugg ñu ne ko tribunal bu Dakar warulaa àtte parce que doo nga bindoo mu ne comme man Ziguinchor laa bindoo xaaral ma tàmbali ndax bu leen xam bu leen fàtte ne da ci am nekk ci ñu nekkoon ay avocat Karim xam nga ñun Sénégal benn problème la ñu am mooy dañoo gaaw a fàtte. donc duñu duñu duñu duñu introsé démb. mu daal di dem Ziguinchor ñooñu ne Ziguinchor compétent wul pour atte daal di def recours ak agent judiciaire de l'État ñu ñëw fi nga xam ne mooy euh, cour suprême mu daal di casser verdict daan ne lagg leen dem Ndakaaru ca turbinal grande instance bu Ndakaaru bu leen demee lu mu leen wax ngeen xam ne noonu la demee bañ demee Ndakaaru yàggul dara waa Ndakaaru le juge Ousmane euh, Racine Thion daal di ne. yamul sax ci Ousmane Sonko nañ ko réintégré ci liste électorale yi xam nga juge moom amul supérieur comme li muy wax supérieur juge moom amul supérieur juge mooy juge day wax nga d'accord ne waaw d'accord nga ne waaw léegi nag dafa am ñaari xëccoo yu am. muy ñaari xëccoo yi mooy yenn saa yi da ngay xëccoog nit comme ci wàllu suuf wala nangam ñu ne la mënugoo ko jot ndax daa def recours loolu mooy le suspens le suspensif maanaam dañ koy dañ koy aj dañ koy ajandi en attendant am ci loo xam ne loolu lañ naan non suspensif man waxuma kenn sénégalais laay waxal mhm. ndax li ñu fi indi tey du xuloo du du werante du du wax lu ñu neex mais lu ñu fi indi mooy wax dëgg sénégalais yi xam ne nii la demee. waaye waxal itam askan wi lu leen di amal ma ma maa ngi ñëw. Euh, li xew mooy ci li ma laaj rek li xew mooy ginnaaw ba juge ba waxee ne euh, Ousmane Sonko lañ ko doon toppee ba tax ñu génne ko ci liste électorale yi loolu mënatul nekk ndax ba mu duggee kaso. bañ ko jàppee mooy li muy wax contumace bañ ko jàppee ca la contu bu tëb bu fekkoon ne daa toog fukki fan nag bindul ne nañ ma àttewaat bu boobaa day continuer nekk un contumax waaye matul fukki fan ci bis bi ñu ko jàppee ci la bind ne lii ma dox sama diggante ak beneen sénégalaise bu tudd Adji Raby Sarr d'accorduma ci niñ ma attee kon loolu nekkatul lu ñu sukkandiku ngir génne nit ci liste électorale xanaa bañ waat te pour ñu attewaat faaw élection yi passé wala du noonu mu daal di dem juge bi ne kon nañ ko delloo ci liste yi amul xaar cour suprême amul xaar leneen ma indiwaat jurisprudence am na ko xam dañ ko génn ci liste ba pare jugement ba sax dafa définitive woon mu tudd Karim waaye bi mu demee DGE dañ ko jox mu pare ne wala loolu dafa yàgg loolu yàggul 2019 la <laughs> dem ba am parrainage yamul foofu sax conseil constitutionnel dana ko matal nga sax far sa parrainage mat na donc dafa am koo xam ne muy moom mii muy man muy ñun ñu toog ci plateau bi muy juge du kenn ku naan kii mooy bokk wala kee du bokk loolu kenn amul maqamam ku dul conseil constitutionnel léegi nag li xew Sénégal mooy dafa am ñoo xam ne dañu jël mbubb conseil constitutionnel sol ko taxaw ne dañuy def seen segg xam nga luy DGE ci élection présidentielle waxuma yeneen mooy ngay dem concours CESTI am na kuy toog ci banc bi nga ñëw mu ne la lii ngay fournir ngay def concours ENA ne damaa bëgg a bokk ci concours bi ñu ne la demal ci buntu ENA nga dem boo demee dinañ am këyit bu ñu la jox loolu mooy DG DG habilité wul pour xool ku nekk ci liste yi wala ku nekkul ci liste yi DG joxuñu ko liste candidat xamul kuy liste candidat da ngay ñëw ne maa ngi tudd euh, diw damaa soxla maay mandataire diw wala man maay sama plénipotentiaire bopp damaa bëgg bokk ci élection présidentielle ñu la en sa carte mi ngi nii ñu jox kon Ayib Daffé bi mu demee ne maay mandataire Ousmane ko dañ koy jox bu ñu ko joxee mu dem wuti parrainage def citoyen wala mu def parrainage élu bu noppee daal di dem fay 30 millions bu noppee bu doon DG mooy tànn kay kon kay ñun ñu xam candidat yi kan moo mën a wax ne lu tax on nous appelle on ñoom 265 nu ñu leen di woowee ils ne sont pas des candidats mais des candidats à la candidature. léegi nag bu demee ba ci réew mi ñuy bañal nit ku juddoo ci réew mi comme ni ko yoon waxee am nationalité sénégalaise dégg tubaab mën koo bind am am euh, ay waajur fii. voté fii ci dëkk bi ñëpp xam ne kii c'est un amul lu ci nattable am casier judiciaire bu vierge ñu lànk ne duñ ko jox fiche yi ndax lan dañ koo génne te ma ma wax leen ma wax leen hmm. tey bi biñ koy génne révision passé na te teewul génne nañ ko kon bu buñ koy dugalaat amul ay révision exception léegi mbir mi noo leen ko tuddee yéen injustice lañ ko tuddee ni ko tuddee mooy def lu la neex niñ ko tuddee mooy kii kat aw ma lenn lu ma koy toppee amul benn article ci yoon ci constitution wala ci benn fenn boo jël du droit électoral du droit euh, beneen boo mën di jël ci ci réew mi bu ko mën a éliminer léegi bu mu dem ndax bu demee ñee droit la ñuy wax léegi xaaral ma bare ko ci digg bi. d'accord dinañ maanaam maanaam maanaam bu demee ndar. kenn du ko teree egg Mauritanie ñu yamale ko ne ko doo egg doo passé ci waawoon kon loolu mooy li nga xam ne moo xew ci réew mi te teguñu ko ci droit teguñu ko ci xam-xam ci lañ ko teg mooy l'état du Sénégal bëggul Ousmane Sonko nekk candidat parce que jàpp na ne bu nekkee candidat mooy gagné élection yi. dinañ ñëwaat ci loolu